vie ñu xool l'observateur tey li mu xëyee tey ci xëtamu njëkk tey àllarba bi yem ak juróom-ñetti fan ci weeru euh, mai ak euh, suba incha allah ndax suba yee la euh, benn nunu maanaam xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo bébé yi dañ ko arrêté pour abus sexuel sur un bébé de 11 mois xale bi fukki weer ak benn képp la motalagul sax benn at moom bañ ko laajee nee na moom xamul sax lan moo tax mu def ko mi ngi koy réccu euh, moom caméra de surveillance yi ñoom ñoo ko jël te boo moyul nag dinañ ko euh, teg daan euh, fukki atu kaso l'observateur ba tey ñëw ci këch benn ñu ne drogue la bu bees boo xamante ni dafay faat nit fii ci Sénégal une synthèse base d'eau humain qui provoque une addiction rapide musiba deux trafiquants étrangers arrêtés entre Colobane et Médina <laughs> et et la Médina yaxi nit c'est ça ay drogue de synthèse la maanaam gis nga ci ay yaxi nit lañ koy defaree nee nañu doy na waar torop am na nit ka ñuy sulli bay jëli yaxam di ko dëbb di ko jox nit mu koy drogué yoo tamit lii tam ëpp na lépp am na fi champ gazier de Yakar Teranga gaz du Sénégal la donne change ak nouvelle configuration avec un troisième partenaire ginnaaw réduction participation société américaine euh, nekk et puis li ñu doon sànq douane dafa teg loxo ay billets euh, noirs ay faux billets d'une valeur de 3 milliards de francs CFA li ñu évoqué tout à l'heure également ak suñu gan muy université Cheikh Anta Diop de Dakar ak affectation bu euh, professeur Ismaïla Madior Fall te waa SUDES d'accord ñu ci ca IFAN moom am na lu mu tontu nee na syndicaliste SUDES yi dañoo euh, dañoo xamul les règles qui régissent le statut des enseignants chercheurs ou sont de mauvaise fois anecdote séquence à vif la fâcheuse expérience des artistes ñuy ñenn ñi di nettali euh, seen jaar-jaar ci euh, ci série yi dans Karma euh, kii moom mu ngi nettali nee na quand Amiléa m'a giflé pour de vrai ba mu ko pesee nee na nopp yi da doon riir sax lunettes yi <laughs> dem nee na bëggoon naa sax fayu voilà une petite anecdote et puis lamb bëri door Sa Thiès la phobie de la dernière marche ñu dem xool record li mu xëyee tey jile vieux ci xëtam mu njëkk tey jile ci mercredi ak jeudi on le rappelle voilà ak Champions League bi Cheikh Tidiane Diaw Malick Ligue des champions demi-finale retour le Real en quête d'une dix-huitième de euh, Ligue 1 le Bayern a une idée en tête Dortmund retrouve Wembley fin de rêve pour Paris démb gis ngeen ko ak euh, seen star bi Kylian Mbappé ginnaaw bañ leen éliminé ñoom waa PSG nee na quand bon ça ne tape Euh, mm. c'est à la page 8 et puis wàllum lamb yi tamit euh, wàllum football ba tey plutôt Ligue 1 Cheikh moom mooy coach bu Teungueth FC nee na nous avons toujours euh, su nous relever mi ngi ci page 3 bu journal mm. Record moom ak l'Observateur ngeen mm. jënd ko liir xibaar yooyu le ñaari quotidiens yi groupe Futurs Médias di édité ngeen mën koo lire. ba muy mujjee finalu na la ko seqaloon. Hmm? na la woon. ba muy hmm. mujjee finalu Ligue des Champions. <laughs> Ah Pourquoi bon? pas une affiche allemande Allemande, 100% allemande, <laughs> c'est ça. <laughs> On croise les, les doigts. La Juve. Mm. La Juve aussi. avec Lars Ricken. Lars Ricken ak euh, <laughs> Moller. c'est à lire en tout cas li ci des bëreetul n'est-ce pas finale bi kañ la euh, début juin wala. Euh, fin juin. fin, fin juin. Ah. fin juin non non fin mai. fin mai fin mai c'est ça Wembley. c'est ça Wembley lay doon diggante Real ak Wembley. ah. ak on verra bien merci beaucoup El Hadj Malick allez ñu jàll tout de suite ci météo bi en express. la Madrid.